rafal janaabati yëg yëkkati janaaba ja xantiltul en daay walif yooyu la cër daa wax ne nag ndegam na ngaa amee janaaba booy njàpp njàpp benn benn bi da nga yéene yëkkati janaaba ja ci cër yooyee waaye loolu di ko wax waaye du ci sart xanaa comme sopp la mën a tudd rek waaye moom maanaam boo yéene yëkkati janaaba ji rek dal nga yéene waale cëri njàpp yi kon jamono yooyu ngay toll ci raxas cëri njàpp yi bu fekkee yéesuloo ci yéene yees ci cëri njàpp yi tam du ko tee baax nga tax sara bi naa laxal la zalika xalaa jihatil istihbaabi wa illa fal madhabu annahu yujisiwu xaslu wudo yi xan xasli mahallihi walaw naasiyan li janaabatihi suma ifaadatul maayi topp sotti ndox ma xalaa rasihi ci boppam salaasa ñetti yoon ba tey raxas sa bopp ñetti yoon bokk na ci ngeneel yi bu fekkee ne boppam bëriwul kawar nit ki bu yor ab nel kon wala boo kawar daal bëriwul moom nga xam ne bu ko raxasee benn yoon sax mu daal doy kon daañu taamu ci kaw sopp rek bu raxas ko ñetti tàng mu def ñaari loxo ba mu fees mu def ci raxas ko bés mu génn defaat ko defaat ko bu ñetti yoon waaye ne loolu sopp rek la ndegam moom kawaram bëriwul yow mën naa dajal ci ndox su defoon benn yoon képp tam daj itam bu ko neexee yem ja bu defee ñaar bu ko neexee yem ja waaye itam bu fekkee kawaram dafa dëgër lool ba mu bari lool nga xam ne ba mu defee ñetti yoon sax taxul mu daj lu tee mu war a jàll rek moom ba ndox ma dugg ba ci biir te fépp daj loolu mënu cee ñàkk tumma ifaadatul maa yi topp sotti ndox ma xalaa chiq yi ci wetam nga al ay mëni gay ndeejoor xam la ay sëriñ njëkk càmmooñ ba ba tey taamu nañ mu raxasoot ndeejoor door a def ko càmmooñ su boobaa ya tàmbalee ci mbagg ma jëlaali loxo baag jëlaal li tàmbalee ca mbagg ma ba ca conca la ak toqtaan ma topp ko noonu ba ci bëti boobu ba ci wetu ndeyjoor ñooy def ko ci wetu càmmoñ lépp lu am ndeyjoor ak càmmoñ rek nga ne la nga njëkkee ndeyjoor mujjee càmmoñ wal ba du ak njëkkee bil ahaali ci gën jaa kawe yaram wa xam ne asaafi li njëkk gën jaa suufe yaram wa cër bu nekk boo ko dee raxas dañoo taamu nga tàmbalee fa nga xam ne moo féete kaw jëm si suuf moo gën nga tàmbalee suuf jëm ca kaw wa taqlil maay ak néewal ndox ma maa ihkaamil xas di ànd ak xereñe raxas ga bi kasri xamsal ci kasra xamsa gi bi kasril hamzati ay lim si na mu itqaanihi ak xereñeem soo ko defoon maa ahkaam day daal fi ahkaam ay atte maa ihkaam lay doon kasra xamsa gi mooy nga maas ko ci suuf maas ko ci suuf moom kasra xamsa gi muy ihkaam di firi ak xereñe daa bëgg wax ne muy jàpp muy sangu farataa ci yam dañoo sopp ndox mi ngay def yem rek ba noppi di ko bomb bu baax a baax bañ a bàyyi fenn ba noppi ndox mi yem rek bañ a ëppal donte ci géej ngay jàppee wala tax itam bëgguñu rek nga def ndox mu baree bare ni gën nag nga tegalee ko ca ngaay moom da ngay jëkk wax rek ne booy sangu farat daal moom boo jëkkee jëkk ubbi sub robinet mbaa sab saas mbaa nga am ndox mu baax rek taxi ba yaram yëpp daj itam si jaan wàcc na da ngay sangu farata waaye nañ waxoon nag ci suñ si xaar moom ni moom lañ gën a taamu mel nañ tëgalewu ko fii dañ ne woon booba bu la soobee taqee da nga koy njëkk a dindi da ca topp mooy njëkk a jukki ñu tàmbalee jumbax jëm si ci bunt suuf bi ak bunt sowukaay bi te yéenee joox faratay cangaay bi da ca topp mooy njàpp njàppum benn benn boo noppee raxas nag bopp bi boo noppee ci bopp bi dem ci noppum ndeyjoor jóge ci dem ci noppu càmmooñ jóge ci dem ci baat beeg dox bi jóge ci dem ci wetu ndeyjoor ba ci bëti woon ya wetu càmmoñ topp ca ba ci bëti woom ya àggale nag la tàmbalee bëti woom ya ba ca desere ci tànkum ndeyjoor jàll def ko ci bopp càmmoñ jàll nag ca gannaaw ga boo noppee ci gannaaw ga nga ñëw daal di àggalee biir nag dënd bi ñoom ngay mujjee noonu daal yoo xam ne moom lañ gën a taamu ci nga sangoo ko farata waaye teewul nag moom bu yaram bi dajee bàyyiwoo fenn fenn rek nga am yéene sangu farata rek sa jaan wàcc na fas noonu ak tayammum mu tiim taxaaratun ak laaw la tura bi yëtu muy ko suuf tas tamit wow dina làmboo xalaa masi ci ci masa kanam nga wala yéen ak yaari loxo ya nee na tiim ak laab la goo xam ne suuf lañ koy defee mbaa boog lu mel ne suuf moom nag weesuwul rek masa kanam ngay loxo yi yooyu yaa dong la wa sababu foo sababam faqdul maa yi mooy ñàkk ndox xaqiiqatan ci dëgg-dëgg aw maa wala loo xam ne foo moom fii hukumi yi nekk na ci àtteem ñàkk ndox nee na lii tax a tiim moom mooy amoo ndox ci bu wér a wér mbaa am nga loo xam ne boo ko tàmbalee itam doo àggale loolu mook ñàkk ko ñëwee moom mu misaale ko mis lu an yekkoon mel ne mu nekk ma xaw ànd ak moom minal maa yi ci ndox maa loo xam ne laa yëg fii du ko doy aw maawun wala am ndox yaxaaf moom dana ragal bis ci amaalihi ci jëfandikoom fawaata nafsihi faatu bakkanam aw fawaata manfaatin wala faatu njariñ aw ziyaarata maradin wala yokkuk tawat aw taaxura bur in wala yéex a wér aw xudoosa maradin wala sosu tawat waaw nee na bu fekkee ne am nga ndox waaye la nga am moom doyut boo ko doon tàmbale boo ko doon tàmbalee jàpp njàpp ma du àgg boo ko doon tàmbalee sangu farata du àgg mu daal di jeex kon loolu moom ñàkk ndox ñooy moom ba tey boo yoree ndox moo xam ragal nga ne boo ko jàppee mbaa nga sangoo ko da nga dem ba bëgg a naan te doo am loo naan mbaa li nga àndal ni ki fas wi nga war mbaa jur gi nga àndal dana dem ba dee te doo am lum naan yooyu yëpp mook faatu si bakkan la ñamale da ngay bàyyi ndox ma kon te tiim ba tey bu fekkee ne boo jëfandikoo ndox mi amoon nga tawat joo xam dana gën a metti mbaa dana yéex a wér mbaa am na tawat joo xam dal la woon sax waaye boo jëfandikoo ndox mi mu far la dal loolu mën naa am nga xam ko ci sa bopp bu baax a baax mbaa ko xam faj wax la ko mais yëpp kon da ngay daal di bàyyi ndox mi rek sa farata mooy daal doon tiim moo xam jàpp la waroon moo xam sangu farata la waroon bu fekkee ngant yi am na da ngay bàyyi rek jàpp ma cangaay lépp rek te tiim te du tee tiim ba daal di wecci jàpp wayu baaxu def na daganal atta yemb mu tiim minal xaddasi ca toj ma ak asxar yi ma gën a ndawe wala ak bëri ak ma gën a mage isaa wujju da dem fekkees na sababu sababam lil mari bi ñel aji tawat wal musaafiri aji tukki li kuli salaat ñel gépp julli nee na nag bu fekkee da ngaa tawat bu mën laa jëfandikoo ndox wala ngay tukki ba tukki bi tax laa ñàkk ndox kon daañu la may nga tiimal loo bëgg a tiimal moo xam jullit farata la moo xam jullit naafila la moo xam la tax di tiim mooy ñàkk a jàpp maanaam ñàkk a mën a jàpp xam ne jàpp la waroon mbaa boog sangu farata la waroon waaye muñ laa sangu lu ci mën doon rek yow ndegam tawat jee ko waral mbaa tukki bee tax ndox amut kon mën ngaa tiimal mboolem farata yépp gum ci doon rek mën nga koo tiimal muy farata yépp ak mboolem naafila yépp li ko boo daa julli yoor yoor bu yooree jotee mën nga daal tiim julli yoor yoor bu tisbaar jotee mën ngaa tiim daal dawalal tisbaar door a tiim julli tisbaar muy wéy rek mu des ki nga xam ne moom biir a diwut te ma nga fa mu dëkk kooku nag moom noonu lay bëgg a wax wali saxiixi ak ñeel aji wér alxaadiri ji aji teew li salaat binaasati ñeel julli tàdd isa tax yenat ndeem ràññiku na wali faradi xayril jumuhati ak ñeel farata yurul jumaa bi sharti an yaxsha ci sartu mu ragal fawaatu waqti faatu waxtu wa bis di amal li maay ci jëfandikoo ndox ma bu fekkee yaa ngi fi nga dëkk te itam wér nga ñàkk ndox rek moo la tax di tiim kon yow farata mënti ñàkk rek ngay soñ a tiimal la cee dolli ko nag mooy bu dee julleeg néew goo xam ne yow rek yaa fi nekk war koo tiimal buñ ko deful mu daal sottiku néew ba maanaam kon da ngay daal di tiim jullee ko ndax buñ ko deful mu daal sottiku waaye bu fekkoon ne kenn ku am jàpp doo nga nekk dafa yow kon doo ca sañ a bokk ci jullee ga bu fekkoon ne koo xam day tukki mbaa mu tawat ba nga xam ne farataam mooy tiim ma nga fayit kon yow mi nga xam ne fa nga dëkk te ñàkk ndox rek moo tax di tiim xam ne wéradi woo doo sañ a bokk ci jullee néew googee farata itam li mu génne ni farata julli jumaa itam jàppal ne bu fekkee ne ndox daa amul moom des na tiimal jumaa li sañul koy mooy ndox am na ba noppi na nga ragal ne boo fi nekkee di jàpp rek mbaa boo fi nekkee di sangu far jumaa jaraw la kooku moom kon doo sañ a bàyyi ndox ma ne daay gaaw julli jumaa léegi da ngay jëfandikoo ndox ma rek bu la julli bu la julli jumaa ji rawee nga julli tisbaar waaye mu fekkoon ndox daa amul nag moom kon des na tiim julli ajuma jàpp na itam saa yoo ragalee ne am nga ndox waaye boo koy jëfandikoo waxtu waraw la doo ci am rakk sax kon da ngay bàyyi ndox ma dal di tiim kon sa farata mooy tiim waaye nag nga jàpp takk-takk boobu maanaam bu dee ajjuma moom boo xasee am ndox mi te sangu farata war la wala boog jàpp ci sa farata xam ne jàpp nga war a def kooku moom doo sañ a tiimal ajjuma bu la wóor ne sax boo fi nekkee di jàpp mbaa ngay sangu cangaayal farata li jumaa ji raw la it day war rek bala sangu waree nga sangu bala jàpp waree nga jàpp bu la jumaa ji rawee nga julli tisbaar waaye nag doo sañ na rek damaa ragal jumaa ji raw ma daal di bàyyi cangaayal farata la wala bàyyi njàpp ma bu dee cangaayal sunna nag muy cangaay li nga xam ne aljuma ji rek tax nga di ko def nag moom bu la aljuma ji naree raw nga bàyyi ko gaaw jàpp te bàyyi cangaay la ndax cangaay loolu sunna la cangaay li ñuy wax mooy cangaayal farata nga xam ne mënta ñàkk kon nag bu fekkee ne moom du jumaa geneen jullit farata la te waxtu waxat doonte am nga ndox itam da ngay bàyyi ndox ma daal di gaaw tiim am ca rakk ci waxtu wa bala laa waxtu waa raw waaye nag bul ne man dama aadowoo jàpp man daal jàpp rek laay def wala man daal sangu rek laay def boo waxtu rawee itam baax na déedéet ndegam du ajjuma moom bu waxtu wa xatee nga xam ne boo fi nekkee di jàpp mbaa ngay sangu farat doo ci am sax ab rakk nit ki nga biddanti naajee yeewu ba jant yi bëgg a fenk da ngay gaaw rek tiim daal di am rakk ci waxtu wa wala yu'idu te du baamu maanaam ki nga xam ne moo tiim te la mu tiimal sañ na koo tiimal kon gannaaw ba bu amee ndox itam du tax muy baamu déedéet baam baamu nga sax day araam ndax ndegam moom ba muy tiim ci ndigal la ko defee woon rek tiim ba daal nay wecci jàpp te xilaafil janaasati ci wuuteeg ak tàdd isaalam tataxa yen deem ràññi ko wut mu ne nag loolu wuute naag nag bu fekkoon ne dafa tiim ci loo xam ne amu ci woon ndigal niki niki mu tiimal néew boo xam ne ragaluñ ca ak soppiku mbaa boog ko amee woon jàpp nekkoon na fa mbaa ku sañ na tiimal julli yépp di ko ko tawat nekkoon na fa kon kooku xam nga moom wér te nekk fa mu dëkk amutoon ndigalal tiim di jullee néew boobee kooku nag bu tiimee jullee néew boobee itam du tee boromum jàpp dana ñëw ñu baa mu jullee ga julleewaat néew ba mbaa koo xam ne sañ naa tiimal julleeg néew niki ku taw niki ku tawat ki nga waxoon ñëw tiim ñu julleewaat ko julleegu yees wa fardil jumuhati ak faratay ajjuma walaw xashi ak doonte ragaloon na fawaatahoo faatam nga kooku waxan nañ ko léegi ci ràññeele maanaam julli juma moom bu fekkee ndox am na doonte xam nga ne boo fi jëfandikoo ndox mi jumaa ji raw la it du tee dangaa war a jëfandikoo ndox ma bu dee jàpp mbaa muy cangaayal farata moom ragal rek jumaa ji raw la du tax nga sañ a bàyyi ndox ma dem di tiimal jumaa ja waaye rek leeraloon nan ne su fekkee ndox dafa amut kon moom daañu tiim julli jumaa ja wasaa'iri nawaafili ak mboolem julli naafile yi sunnanihaa seeni sunna wa mustahabbaatihaa ak yañu sopp ca ñoom mboolem julli naafile yi moo xam day julli sunna ni ki korite ak tabaski ak mbaaw ak yooyu ah julli mbaaw laa bëgg a wax mbaa lu ñu sopp ni ki jekki-jekki rek sawar daal di bëgg a julli ñaar rakk ci waxtu dagana naafile mbaa sax naafile gu ñu ràññeel ni ki yoor yoor mbaa yooyu yooyu yëpp moom bu fekkee yaa nga fa nga dëkk te ñàkk ndox rek moo la tax di tiim doo sañ a tiimal dara dara ci yooyu mel ne bu ñu woon tey la korité ñu war a julli julli korité mbaa tey la tabaski ñu war a julli julli tabaski yow nag yaa nga fa nga dëkk waaye amoo ndox sax moo jàppee ba mën a julli korité ga mbaa tabaski ga koyit doo sañ a tiimal julli korité ga mbaa julli tabaski googee kon nag nga ràññeel ñett ñi ñu la wax ki nga xam daa tawat moom may nañ ko mu tiimal mboolem julli yëpp farata ak naafila ki nga xam ne it day tukki ba tukki ba tax koo ñàkk ndox may nañ ko mu tiimal mboolem julli yëpp muy farata muy julul farata yow mi nga xam ne nag wér nga mën ngaa jëfandikoo ndox ñàkk ndox rek moo tee nga jëfandikoo ko yow lañ ràññeel nag ne la farata mi mënta ñàkk moom nga sañ a tiimal ak julleeg néew koo xam ne ku ko gaawul jullee ko rek mu daal di soppiku te kon war nañoo gaaw waajal ko jullee ko kon su boobaa ndegam yow rek fa nekk gisuñu keneen saye boo tiim kon daal koy jullee daal koy jëbbal boromam balaa soppi ko waaye nag nga seetlu ne bu nu waxee ne ku tawat sañ naa tiimal julli yëpp itam kat tawat jan wax mooy tawat joo xam ne saa yu jëfandikoo ndox tawat ja day yokku mbaa day yéex a wér mbaa sax tawat dalu ko woon te bu jëfandikoo ndox mi tawat dal ko benn mu xam ko ci boppam bu wér a wér mbaa ko xam faj wax ko ko waaye kat néew nu la rek saa yu wéradee ni ki boo si buroo wala nga nekk hôpital mbaa dara rek tawat nga sañ nga daal di tiimal mboolem julli yëpp déedéet tawat joo xam day bañ ndox waaw kay jooju lañ wax waaye yabtulu dana yàqoo attaye mu mu tiim ba bi maa ci la nga xam ne yabtulu dana yàqoo bi xii ci moom alwado njàpp ma lu ñu wax ne nag dana yàq njàpp ba tey xamal ne mooy yàq tiim lépp lu daa firi jàpp dana firi tiim nga dolli ci nag woo bi wujud woo bi wujud li maay ak ci amum ndox xamle salaat njëkk julli illaa an yaxsha nga ne ba dafa ragal fawaatul waqti faat ko waxtu wa bi ci amaalihi ci jëfandikoo te nga cee dolli nag boo tiimoon ba àggal amum ndox te waxtu yaat ba nga xam ne mën nga fee jëfandikoo ndox mi am ci baraka doon ni soo tiimoon ba nga julli ne awma ndox laata nga julli faram dégg robinet bi xel te waxtu yaatu na mën ngaa dem jëfandikoo ndox mi ñu am ci rakk su boobaa boobu tiim yàqu na loolu moom bokk na ci luy yàq tiim te mënta yàq jàpp waaye nag bu fekkoon ne bi nga tiimee ba àggal daa fekk waxtu waxat boo bàyyi woon tiim bay bi nga jàpp ba bëgg a sangu it doo am doo am ca waxtu wala matu rakk sax kon tiim ba rek ci ngay wéy daal di julli ci ngay daal di wéy julli ci tiim ba waaye doo jekki di jëfandikoo ndox ma soo ne man damaa tàmm ba damaa julli jàpp sax ba tax na nga bàyyi ba waxtu waraw la ndax doon jéem a jàpp yooyu rek par waxtu waraw la kon nga am bàkkaar wa itaara aneem gis na almaa ndox ma wax wa te fekk na moom fi salaat nekkal ci biiru julli lam tabatul li yàqu salaatu ko julleem nga léegi wax léegi mooy ngay tiim ba àggal bay bëgg a wax allah ku bar daal di am ndox mi ñun fi mu toll nii mooy tiim nga ba àggal ba wax allah ku bar door a am ndox mi kon boo xasee tàmbali ci julli gi moom door a am ndox mi du tax julli nga yàqu da ngay wéy rek moom julli ko baax na wa yette yem moom dana tiime bi soxna di ci pàkk ak tey bi bi aji tey baa nga ne bi aji laab waxul moom nag pàkk bu laab ak turaabu mooy suuf wala xajaru ak doj wala ramlu ak beeñ wa jamiu aji saayit ardi ak mboolem xaaju suuf si maadaama li fekk sax nañu xalaa xay ati xaaj seen melo lam tuxa yir xaa soppiwu leen samxatu aadama yi jëfi doomi aadama du tabaxin ci togg wala ndax yi ak lu mel ne moom daa wax ne nag moom bokk na ci faratay tiim nga tiime ci pàkk bu laab pàkk bu laab nag mooy loo xam ne yoon moo la wax ne la nga sañ caa tiim maanaam pàkk bu laab daal bi ñu ko waxee mooy loo xam ne yoon moo joxe ndigal lu ñu tiim ja li gën ci li ñu tiimee nag mooy suuf waaye mboolem xeet doj yi doj woo ci xam ne loxo doomu aadama soppiwu ko rek ñu dañu carrière mbaa dañu dënn mbaa dañu kew yépp mën sañ caa tiim bu ko loxo doomu aadama soppee nag mel na ciment wala laso wax nañ koo togg moo xam nañ ko lakk ñoo ci yemoo lu mel noonu kon jur si mën a tiimati wax turaabu suuf afdalu moo gën min xëy di ci lu dul moom maanaam tiime ci suuf nag moo gën tiime ci lépp lu bokk ci suuf rek xam ne suuf ko gën ci nga ci boo dee tiim wala yett yem mu du tiim xalaa cheyin ci dara nafiis li aji gànjaru lu foor kat zahabi ni ki wurus wala finnati ak xaalis loo xam ne aw xeer la waaye day xeer bu foor ni ki wurus ak xaalis ay xeer lañ waaye day ndoll bu foor kenn du tiim ci xaalis ba wurus doonte jàll bu nekk sa kanam it lu tax ñu sañ caa tiim wala xalaa lim dim du jaag yoonu ci ab lal teg lal teg mooy lal taay lal taay ak lee mu ca teg wala xalaa bisaatim du jaag yoonu ci toppi wala xasiirim du jaag yoonu romb jaar wa it kaan ak doonte nekkoon na fii xaaja moom xubaarum pënd mel ne lal taay wala toppi wala romb jaar ak yu demee noonu wala karaw yi sax yëpp kenn du ci tiim doonte bari woon na pënd ci kaw yi du tax mën caa tiim waaye jur suna dagal ngir mari ñeen aji tawat yi taalam yee jit nim amut man koo xam ne yu naawilu fa dina ko jot di turaaban suuf ay yette yemaamu bu tiim bil ci daari ci miir ba almabni yi bari buñ tabaxee bir tóo bi ci mboolu ban ba ak nii i bari bu ñu lëkkut aw bi xijaarati wala ci doje isaakaana dem nekk nañ ñoom doje xayra mastorit du lu ñu suturaal bil jiri ci ciment nee na boo tawatee amoo ku la andi suuf waaye biir bi dégg nga yow moom dañ koo tabaxee mbuul ban boo xam ne kenn lëkk ko ban kese la mbaa dañ koo tabaxee ay doj yoo xam ne doju cosaan la ñu ki doji carrière mbaa doju dënn te kenn dooxu ko ciment kon kenn soppiwu ko ci genn wet kon mën ngaa tiim ci biir boobee ndax suuf daa gën ci lu ñuy tiim rek waaye loolee mën na sa caa tiim waaw mën teye moom ku tiim xalaa maw bi ci ab birëb najis bi aju sobewu wala mu yaalam téyegutoon bi najaasati ci sobewam nga ahaadamu baamu fi waxtu ci waxtu wa nee na bu fekkee da ngaa tiim fekk suuf sama doon tiime daa am sobe fekk yëngu ko woon booba gannaaw bi rek nga ko yëg su boobaa kon ba nga jullee ba noppi julli nga baax na waaye daañu sopp nag nga baamu ko boo amee ndox daal di jàpp baamu julli nga boo amul ndox itam nga tiime ci béréb boo xam ne laab na te baamu julli nga. loolu bu la wóoroon ne sax moom ba nga ciy tiim moom foofa daa am sobe kon da ngay baamu faaw faaw moom du yem ci baamu ci waxtu baamu faaw lay doon. wala yu ko defu defu si attayam mu tiime lu tëraabin ci suuf tuur mi ma soo xam ne tiimee foon na bii ci moom maratoon aw yoon uxra waneen nee na suuf soo xam ne njëkkoon nañ caa tiim duñu bañ nga dellu tiimaataat ja nit ki bu la neexee rek tibb sa palaat def ci suuf saa yooyu tiim rek daal cee tiim koy tiim gi njëkkoon a tiim tax ñu wax ni sib nañ nga dellu ci tiimaat déedéet wala yi sibu du wér atte yamu mu tiim nga xam la doxal waxtu njëkk tàbbi waxtu wax bokk na ci sarti tiim bala ngaa tiim fekk la ngay tiimal waxtoom jot waaye boo tiimalee loo xam ne waxtoom jotagut kon du baax lu fekkoon wa sifatuhu meloon wax moom tiim ay yanu yow mooy mu yéene istibaaxatu salaati sàkkoo dagan bu julli ga wa yanu yetti mu yéene minal xadas si toj ma al akbari ma gën a mage in kaana dem nekk na mu hadisan di aji toj le xadasan am toj ak bara mu gën a mage suma yàqu wala topp gën a wax bismillahi dangay def say say loxo tegg ca la ngay tiime bu dee suuf bu dee leneen daal di yéenee dagal lu julli ci sa tiim boobule su fekkee amee woon nga janaaba amee woon toj mu mag toj mu mag moo xam janaaba la moo xam war a sangu ngir jeexuk deret la ñoo ci yemoo da nga koy yéene waale waaye boo yéene yéene ku amee njàppum kese ku njàppum kese waram du doy kon bu fekkee amee woon nga cangaay da ngay teewlu waale ne maa ngi yéene dagal loo julli ànd ak sama janaaba ji mbaa sama toj mag mi le bu ko defee nga daal di wax bismillahi nag daal di jëfandikoo tàkk bu mooy fekk na teg nga say loxo ca la nga xam ne moom nga tiime daan di ko raay nag sa kanam ba tax mu naa yebbal bu day dóor xale yi ci kaw moom pàkk ba bi yedda yi ci yaari loxoom jami xam doole seen darba fan ab dóor waaxidatun bu di benn fa in taallaq nem aju na bi himaaj ñoom ñaar suyum dara nafa ba xuma mu fëgg leen naflan ak fëgg xafifan guy aji wayef da ngay jékki-jékki ne tegg sa ñaari loxo ci la ngay tiimee fekkee lu mel ne xaaxam bàyyi bant dèjà taq ci say loxo te boo ko raayalee sa kanam mu gaañ la kon nga fëgg say loxo ndànk ba loola deñ waaye taw moom nag nga bañ a taq suuf ba fomp say loxo bu pënd ba dañ wayam saxu tamit masa bi naaj ñaari loxo yi wacci xaw kanamam nga wal xiyataxu ak sikkimam ba bu ko defee ngay ngay masa kanam gi yëpp dam daj te masa waale sikkim bi yëpp daw day tàmbalee min axlaahu tukkee ci gën jaa kaweem ilaa am yastaw fiyahu ba mu ngi koy matale waaye da ngay tàmbalee ci fa kawar baaxoo saxe ci jëba di masa nag ba kanam gi fépp fépp daj sura bi ne bu toog dana dóor oxra beneen dóor li nga day ñeent ñaari loxoom ma fàttali ne jubluwul sax xaaj ci dóor daa bëgg wax rek teg ba ngay teg sa loxo ci la ngay tiimee rek ñaar lay doon te bu njëkk bi ci ngay masaa kanam te bu njëkk bu farata la te bu ñaareel bi nag moom ci ngay masaa loxo yi moom sunna la moo tax ma naa sumayam sax topp dana masaa zahira yeddi yi biti loxoom ba aliou naa bay ndeyjoor di yeddi yi ci loxoom aliou sala bay càmmoñ xataa yan taxee ba ma àgg ilal ñu faq ba ca coonca la sumayam sax topp dana masaa baatinaha biram ba ila axiri asaadi ba ci mujj baaraam ya maanaam bay masaa loxo dañoo set nga njëkk ndeyjoor te njëkk masaa bitim loxo bi loolu masaa biir ba day tàmbalee ca ci baaraam rek bokk na ci ngëneel yi mais da nga njëkkee loxom ndeyjoor te njëkk bitti ba te tàmbalee ko ca ci baaraam ya nga ñëw ba ci cooc la nag nga bëree bëtt loxo bi masaa biir loxo ba ñëw ba nag ba ci baaraam yi su ko defee loolu mooy loxom ndeyjoor nga ñëw si ba càmmoñ mooy su ma yem sama topp dana masaa zahirul yusra bitti loxo càmmoñ ba bi ngeen di fii ci loxoom aliou naa bay ndeyjoor ilal mirfaq ba ci jonca la su ma sax topp dana masa baatinaha biiram ba ila axir asaab yi ba ca mujj baaraam ya nee na ba ñëwee ci loxob càmmoñ loxob ndeyjoor mooy war mooy war a masa bopp càmmoñ fay ko ba moom dañu bëgg nga tàmbalee ca ci baaraam ya te njëkk a masa bitti loxo bi door masa biir bi nga tàmbalee ca ci baaraam ya njëkk bitti bi dem ba ci conc la nga nga lëfiku waat teg sa loxo ci biir xasab bi mu ñëw nag ba ci baaraam ya bu ko defee nag nga dira raayante téng yi téng téng mu nekk téng mu nekk raay morom ma loolu moo ci mujj waaye jibu dana war taxayul asaabi yi xalil baaraam ya wa nasul xaatami ak summi jaaro ba bu fàtte nag ne ni ngay def boo dee jàpp di xalil diggante baaraam yi ba tey jàppal ne booy tiim itam noonu diggante baaraam yi da nga koy tey lu baax masaawar masaa ko bu baax mel ne ni nga koy xalil bu doon ci jàpp bu fekkee war nga ko jaaro itam mbaa montar tam nga tekki ko ndax li nangu ko ci bàyyi pay la ngeen siixu ndem sunniwu ko rek lawu ji siidu ba doy mu ngi noonu doonte sax daa yaatoo yaatu bu baax a baax moom jaaro ba wala montar ba lu nu yaatu yaatu ci mën a dem ak dikk du tee war koo dindi boo dee tiim li mu ne day war nag booy tiim nga xaliil baaraam yi daa am nañ koy defee moom nasara bi wax naa wa sifatu zalika an yamsaxa jawanib al asaabii bi baatini usbuin min asaabiihi la annahu yudxiluha fi xilaali bacdiha bacdan xata yakuna altaxlilu bi jawanibi al asaabii wa hiya la tamassu turaaba xam nga boo nee tegg sa tënk ak say baaraam te la nga xam ne moom ngay tiime boo ko defee biir baaraam bi mooy taq ca loola bu dee suuf bu dee doj tam biir baaraam bi mooy laal loola ngay tiime kon nag boo bëggee xalil baaraam yi da ngay jël biir benn baaraam fexe baraay ko ci pegg baaraam ya ca des loola mooy tax ñu jàpp ne xalil baaraam yi am na foofu wa darbatu dërin ba ak saaleet ba ak ñaareel sunnatum sunna la teg ba ngay teg sa loxo ci la ngay tiime bi tegu ñaareel la wax ni sunna la bu njëkk ba moo doon farata wa kasaalika ni almasu masaaga ilal mirfaqayni ba ci ñaari conjeer maanaam masaali tàmbalee ci baaraam yi ba su nga takk montar waa fi nga takk jara loolu mooy farata waaye la tàmbalee fa ngay takk nag jara ba ci conc la loolu moom sunna la fala yëq tasara doonte gàttañ lu woon na xalaa darbatin ci ab dóor yin waaxidat bu di benn man nga ne ba tey xalaa darbatin ci ab dóor rek waxam naa ne jubluwuñ xàcc dóor teg rek la jublu waaxidatin lil wacc xi ñeel kanam ga wala yedeen ak yaari loxo ya ajj sa axoo mu doy ko te gat wala yëq tasara doonte gàttañ lu woon na a doonte yemoon na rek fii mas yedeen ci masaa yaari loxoom ya xalal koo xëy ne ci ñaari tikku jara ya wa sallaate bu julli ahaada kon bu baamu fil waxtu ci waxtu wa xam nga dañoo wax ne tegum ñaareel ba ngay teg say loxo ca la ngay tiime sunna la ndax am na wuute sax waaye wuute ba da koo taxut a dëgër lool doon nga sunna moom moo gën a dëgër wax ji ci des dëgërut moo tax moom boo yemoon ci teg sa loxo ca la ngay tiime benn yoon rek bañ a teg tegum ñaareel koy du jar ngay baamu ci waxtu wa bu ñu nee nag masa loxo yi moom da dale ca baaraam ya ba ca tikku jaree rek mooy farata la tàmbalee ca tikku jaree ba ca coonca la doon sunna wax googu ñu wax ne la tàmbalee tikku jaree ba ci coonc ya sunna la daa am wuute te wuute nga dëgër lool moo tax nag moom soo yemoon ci masa la tàmbalee ca baaraam ya ba ci tikku jaree kese yem ca bañ a masa la tàmbalee ca tikku jara ba ba ca coonca la kon na nga baamu ci waxtu wa kon ñu digal la nga baamu ci waxtu wa ndax foofu moom dafa am wuute goo xam ne wuute gu dëgër a dëgër la loolu nag moo tax nag ñu tudd la fi ñaari sunna yoo xam ne benn ba boo ko bàyyee te mooy tegum ñaareel ba du jarat ngay baamu ci waxtu wa ci des nag moom soo ko bàyyee te mooy bañ a masaala tàmbalee tikku jara ba ca conc la moom ñu digal la nga baamu ci waxtu wa ndax fu ci nekk am na wuute waaye fenn fa wuute ba dafa dëgër sàmmoon teg ñi wax wax joojee nag tax ñu digal ak baamu fenn fa nag wuute ba dëgëru fa moo tax digaluñ la fa ak baamu faslun itakaana dem nekk na fii ah daani mu doy ci cëriñ bàpp ma aw xalihaa mbaalu nit ñoom jurhun ab gaañu gaañu waxaaba te mu ragal mun xas li ci raxasam nga bil naay ci lox fawaata nafsi yi faatu ba kanam aw fawaata man saxat wala faatu njëriñ aw siwaale tamaraj wala doole ko tawat aw taaxura bur in wala yeexu wër aw xuddoosa maraj wala sosu tawat fa innahu naka moom yam sax day masaa rek xale yi ci kawam bu fekkee da ngaa war a jàpp mbaa nga war a sangu farata nga amee gaañu gaañu yoo xam ne nag moom boo ko raxasee ni nga war a raxasee fa nga xam ne moo wér ban sa bakk mën a caa des nga far ja faatu mbaa mën nga caa amee gaañu gaañu metti mel ne nga joxe ci gumba mbaa cër boobu laaj mbaa lu ko nuru mbaa boobu boo ko defee tawat di gën a metti mbaa tawat di yéex wér mbaa sax tawat dal woon te tawat dana dal yëpp kon nee na boo ko raxas da nga koy masaa rek yem ci da nga koy raay rek bàyyi kon dañuy wax ne raay ko da nga mën nga koo raay raay ko rek bàyyi te bañ koo raxas kon raay bàyyi rek lañ leen njëkk a digal ci boo amee gaañu gaañu boo xam ne boo ko raxasee rek mu indi la ngaañ kon da nga koy masaa rek bàyyi tey la ñu sotti ndem ak tamit almasa masa ga xale yi ci kawam masaxa kon masa xalal jadira ci kaw garab ga ci kaw lam koy garabale wax yi moom jadiratu addawaay mooy garab ga ëllëg si nga xam ne lii ci xale def na ko def xale yi ci kawam nee na bu fekkee ne mën laa jékki-jékki masa ci kaw gaañu gaañu ba waaye boo ko garabalee ba àggal da nga mën a masa ci kaw garab ga kon nga garabal ko ba àggal wala wuti ko nag léegi masa ci kaw garab ga nee na bu fekkee ne góom boo ci diwee ment la to wala sóoraa wala kulbali mbaa dara da nga ko mën a masa waaye boo jékkee-jékki masa ko ndox solu ci waaye mën nga ci def loo xam ne moom ndox du ci solu kon nga def solo ba noppi garabal ko doo rëbb ko nag masa ci kaw garab ga tey nag gis tokki ndéem attanut ak masa masa ga xale haa ci kaw garab ga masa kon masa xale fi saadat ci kaw naaw ga naaw ga mooy bandaas ba mooy la ko takkee wala xale saay bi ak doonte day ca aji dolli ko ja yoo xam ne mu xaadu bi jublu aji tolloog lu jël xi ñeel gaañu gaañu ba nee na bu fekkoon ne itam boo garabalee ba àggal tax nga mën caa masa